tey jii bu ma sa bu ma ku di murit dana dana dana ci kaw suuf kuy dund. سيدنا asalaamualeykum sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la balwaaq di la ndokkeel di la ñaanal sunu borom yàggal la fi lool te mu ànd ko wér ba lépp loo yéene nisar ko sunu borom may la kartan ci wàll yëpp ba nga mën koo àggale te ànd ko sa njaboot gépp ak taalibe sëriñ Tuubaa yëpp ak jullit ñëpp ginnaaw loolu kàddu yi ñu ngi ko yëkkati ci turu mboolem ku dul xasida yi nekk àddina yi nekk ci àddina bi yëpp ndax ñu ci ëpp seeni ndaw teew nañ fi waaw lim fenn waaye nag àddina bi yëpp rek mu mel ni nag ñëwoon nañ fi daaw fekk la ci jàmm ñëwaat nañ fi nañ fekkaat la ci jàmm yàlla nañ fi yàgg di ñëw di la fa fekk ci jàmm e, kon dañoo ñëwoon tey rek niñ ko waxee woon daaw daayira Serigne Touba yi nga xam ñu ngi fi ñëw di siyaare yooyu yëpp mbooloo yëpp ca lañ bokk lañuy def ñu ngi koy def waaye nag bu ab surga xëyee ci tool jëwriñam bu ngoonee sañ naa gont ci toolam kon ngont moomee mooy ngontum xasida yi moom la ñëw tey jii ngir jébbal si la ko jébbalaale tamit yeesal sunu njébbal ci yow ci Serigne Touba ah ñu ngi ànd ak nag wax dëgg yàlla Eh, lenn ci jëwriñ yi dinañ ci tudd sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Abbas moom Daaru Muxti mu ngi fi teew ñu ngi ànd ak sëriñ Koso Mbacke moom itam moo xam ne mi ngi jógee eh, Amérique ak yeneen mbokk taalibe yëpp sëñ Sidi Mbacke ak yeneen mbokk taalibe yi nga xam ni mënuñ cee yegg sëriñ Amsatu Mbacke itam xasida yabal na fi ay ndaw ñu ngi fi eh, kon ñu ngi siyaar di la ñaanal di ñaanal sa njaboot gii di ñaanal tamit sa jëwriñ yi nga boole woon ak ñun muy sëriñ maam Thierno Mbacke mii ak mboolem ñi mu àndal bisimilah waaw kon eh, barkeelu baa ngi nii lu barkeelu liggéey bi di ñaanal bu baax nag kon kàddu yi li ci des dañuy jox sëriñ maam Thierno mu yeggale ko waaye am na loo xam ne ñu ngi koy nas mu di fas yéene boole njabootu xaside yëpp yi nekk ci àddina ndax jot nañ cee tàmbali ab liggéey bu lu ëpp ñaar fukki réew nangam nangul nañ loolu eh, ñu la ko yëgal nag xam ne dañoo toll ci dagale ko bis buñ ko dagalee nag te am ci ndigal bu ñu ci amee ndigal ba noppi wéyal dagale googee bu ñu noppee nag lépp loo xam lu ñu nisar la bala ñoo def dara dana ñëw fii laaj la ci ndigal buñ ko luñ ca am ñu mën ko jëfe noonu kon dañuy bàyyi kàddu gi sëriñ maam Thierno moom moom moom sëñ Abbas moom lu mu doole ci kàddu yi wajxal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida Mbàkke ñoo ngi siyaar bu baax a baax cay tuub ci kàddu yi muy kàddu yi sant rek ndax saa bi nga xam ne mooy dogal lu ko soob dogal na ci kàttanam bi àdduna bi xatee mu fekk ñu réewum Espagne ñu dund ko fa ak mbokki taalibe yi waaye dañuy wax ne sant nañ la bu baax a baax ñun ñëpp xam ma yeneen i réew de waaye fa ñu nekkoon benn donga bu faatu dégguma ko fa ca dara ma yeewu ko lu dul xasida yi sant nañ Sëñ Tuubaa bu baax a baax nag ndax gën noo nargan ci jafe-jafe yooyu yi bi nu ko amee ba amuñu yitte yi lu du nekk sëñ Tuubaa nga xam ne day mel ne mi ngi nuru jafe-jafe waaye ndimbal la ci ñun ndax tëlatul la neen loolu nag donc yëpp Mbàkke ñu ngi sant sa jëmm ji di la ñaanal bu baax a baax nga yàgg fi ci wér la ca desi donga yi nanu am jom ca góor góorgóorlu ci sëñ Tuubaa nanu am jom ca góorgóorlu sëñ Tuubaa Mbàkke it yëkkati na ab liggéey boo xam ne yéen ñëpp ko gisal seen bopp teg si bët ca mag ñi kan leen rawe du ay julli du lenn ku ne xamal na ko sa bopp mooy jëf bari waa na ku ci daa yóbbi ay addiya sax dañ naan la ña koy yóbbu dañuy dajewaat ak ña yóbbuwaati addiya kon nanu ko xamal sunu bopp te xam ne liggéeyam bii ni mu koy waxee jamono bu nekk bu mu laal suuf kon kenn ku ci nekk ci ñun na daggewaat sa pas fii tabbal ci sa sa yéene ju rafet am pas-pasub liggéeyal ci sëñ Tuubaa ndax bu suñ ko defee kat dana nu ko am ndax ñun ñëpp kenn rawante wut ne réew yi nu nekkoon ba teewaat fii war na noo sant yàlla bu baax a baax sant sëriñ tubaa mi ñu dimbule nga xam ne kenn ku ci nekk lot na ci boppam te mënu ca lenn waaye yàlla moom mën na lépp te bàyyi na Serigne Touba xel sunu borom. bàyyi na sëñ Tuubaa xel kon nanu ci gën góor góorlu ca nekk ci rek ndax ku gis li xew ci àdduna bi yéen ñi génn ñëpp xam ngeen ci dara waaye ni mu ci berele loxe sëñ Tuubaa amut ci kaneen amut fenn kenn ku ci nekk ci suñ ci ñun xam nga fa nga nekkoon kon nanu ko xam te te te jàpp ko te bañ a yambare te te nekk ci sëñ Tuubaa képp bañ ko génn loola nag lanu koy gën a may mooy lii ñu nekk muy xasida yi bëgg sëñ Tuubaa moom ci jàng xasida yi lañ ko mën a amee kon nañu ci gën a góorgóorlu la ca des nag alhamdulilahi mbàkke alhamdulilahi mbàkke ñoo ngi jéggulu sax ci ci ci guddal gi ca koy bu baax a baax mbàkke jërëjëf mbàkke noo lay siyaar te di la jéggulu ci yëngu bi maanaam du sunu coobare sunu matt di rek waaye nag nu ko jégal ci sa mbaax ñu ngi lay ziar te di la ndokkeel ci bis bu tedd bii maanaam di la sant sëñ Touba di la sant sëñ Touba waxan nga ni fii day ne réew mu ne mën naa jaaxle ba mu des réew mu am sëñ Touba waaye Mbàkke bi jaaxle daje àdduna wane nga ko corona de dama wax ne da doon liggéeyal si sëñ Touba ndax sëñ tubaa dey kenn yàlla kennal ko te jaam ñi dese koo xam corona ñëw nag firndeel ko tey de ñëpp nangu nañ ne sëñ Touba kenn la. kon corona jërëjëf liggéeyal la sëñ Tuubaa ndax sëriñ bi kët dafa waxoon ne zimaamul wara asri la dallaahi fi yaddi ci corona ci alwara la bokk ndax ku dul ku kañu bind rek ka bind ca corona des koo bind kon nangul na sëñ Tuubaa ñëpp nangul nañ sëñ Tuubaa bu amee ñu des ci doomi aadama yi la ñëpp nangul nañ sëñ bi corona nag da doon liggéeyal sëñ Tuubaa ngir kennal sëñ Tuubaa ñëpp nangu nañ bakke waaye nag yaa ko jëmmal yaa ko jëmmal ndax diina joyut mat na sëkk te lim bëggoon sëñ Tuubaa defal na ko ak njabootam li gënal yàlla ci kaw suuf nga xam ne bu baaxee ñu ne lépp baax na su desee ñu ne li ci des jarta seet gannaaw baaxut muy julli bi ñëpp dawee bàyyi ko ngir seen bakkan yaa jël bakkanam rëdd tayle ko ngir julli julli nan ba corona wan nanu ginnaaw te sun bakkan desu ci jëf jërëjëf jërëjëf Mbàkke bëggumaa gën a guddal ci wet googu waaye amel na nag cant gu wér Mbàkke goo xam ne bu ko jot gi amee woon des na ko wax ndax kat sëriñ bi daa waxoon ne kooku ñuy wax géwal bariwuti wax ku ko jëf ku ne ku ko wax ga bëgg te jëf nga ko warees na ko wax mbakke Mbàkke jëf su su ko defee nag kuréel gii fi teew di kuréel gi bàyyi ko itali ak Europe gi ko wër Serigne Jaam jiite ko Serigne Sam mënu ko waxal boppam ndax saa saatu du wat boppam waaye liggéeykati sëñ Tuubaa lañ yoo xam ne la Cheikh Abdoul Ahad waxoon lañ jëfee mooy daa waxoon ne liggéeyal sëñ Bamba bakkan lay laaj waaye liggéey bu egsee fii dañoo tayle seeni bakkan ba liggéey bi egsi fii muy Serigne Sam ak mbokk yi mu àndal di jàmbaar yoo xam ne Mbàkke dara ump la ci junj doy na kuréel bi lay junj itam. sëriñ Amsatu Mbàkke dafa waxoon ne lii yéenam ci li bëggam mooy ahlu xasida gépp doon aw say nekk sa gannaaw ndax ni ma koy faral di waxee sëriñ bi ci suñu biir la la tànne jiital la ngay sëñ Tuubaa ku la xam-xam la ci xasida yi kenn mënu la cee dab kenn mun la cee seen nga bëgg ko lool fii ci sa penc mi nga ñu woo jàngaloo ñu fi ñetti téeméeri fulkul masoon ak fukki fukkul fulkul masoon ak ñett ba nga nu ko wax ca Poroxaan da nga ne du ko tàggoo ndax daa rëy bu ma ko tàggoo samay kilifa man nañ ma koo tere ci lii dara mënuma ma koo tee def fii ci penc mi lañ ko defee loolu yàgg na lool sa kër gee ca njaareem ba nga koy ubbi fa lañ daje jàng fa téeméeri fulku kon mbàkki xasida yi ku la xam ci la ko xam fulku bii sëriñ ba Basiru di liggéeyee muy xuraan yi bi ba nga egsee rek lañ ko teg ci sa loxo ba tey mi ngi soxla yàlla na gën a yàgg sëriñ sa wax na nag dafa bëggoon ñu lëkkale kuréel xasida yëpp ñu lekk benn say na ci sa gannaaw ndax nun buñ mbooloo man dara ndax xasida mooy liggéey liggéeyub sëriñ bi loolu nag sëñ Sam mii ak sëñ Mamadou Ndiaye ñu ngi ciy dox jéego yu rëy ba mbooleem lëkkale nañ lu mat ñaar fukki kuréel ak lu topp ak juróom-ñett muy arafi Touba kon dal nam xel euh, biñ ci waxtaanee dama ne sëñ Mamadou nañu na ngeen jiital sëriñ Sam mboolem li diaspora bi mën na koo taxawu ñu buñ ci noppee fekk si ñun ñu nekk fii lëkkoo lañ ba noppi lu nekk ci gannaaw sëriñ am sëtu mu nekk ci sa nu ànd liggéey bi sëñ Tuubaa bi ba nga ko fa nga bëgg sëñ Tuubaa yóbbu ko fa yow nag fi nga ko bëggee mooy nu doxee ñaari tànk ci bañ a doxee benn tànk ñaari tànk yi mooy charia bu mat sëkk ak àq bu mat sëkk ndax Cheikh Abdoul Khadir ko wax ca lappe ngan daan defal sunu waajur wu teddoo sëñ Abdoul Latif lu ma ko doon laaj mu ne ma sëriñ bi da ñett ko wut waaye kenn koy am ne ma nit day wut sëriñ bi ab dof di wut sëriñ bi ku nit di ko wut. ne ma Aliou ma ne ko Mbacke mu ne ma ki nit rek am sëñ Tuubaa ndax ab dof day def ba def lu ëpp a def nit danaan lii du ma ko defal kenn ki nit nag lu mat a def nga def lu mu ëpp a def nga bàyyi ne ma yomal xiyaam ñett fay tase ki indi charia ab kese ki indi àq ab kese ak ki leen boole ne ma ki indi charia ab kese buñ gaawul ci moom mu loru ndax mënu fa mënu fa mënu faa jariñ boppam dara daal di ne ki indi àq ab kese mën naa jariñ boppam. waaye mënut a jariñ kenn ne ma ku leen boo ku leen boole na koo bëgg a dimbale da ko dimbale Mbàkke foofu lañ ko bëggee kon Mbàkke jërëjëf. aleykum salaam wa rahmatullah. li ma bëggoon a gis lépp gis naa ko ci yéen lépp dégg naa ko ci jii bu ma sa bu ma sañoon ku di murit dana dana dana ci kaw suuf kuy dund boo ma sañoon sa njéetaay bii ku di murit dana ci bokk. ma wax wax wax ji wax ji wax ngeen ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida yi mooy sëñ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi bi da ngay ne fonk xasida yi bi mooy sëñ xasida yi mooy sëñ bi xas moo nekk moo nekk diggante moo borom digg moog yonent bi digg moog boppam xas yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi yi réy na bi Sëriñ Tuubaa réy lool ndax luy luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy moo moo jiitu ci liggéey bi moo jiitu ci liggéey bi bu doon bu xare bu doon bu xare ña ngi xam ne ñoo jiitu xale bi topp seen gannaaw ñu jéer jéer fu xale fu yéefar yi toll bu noonu ab xale la kon jàngi xati fonk këti xasida yi xam xati xam xati xasida yi bëgg këti xasida yi liggéey këti xasida yi kon ñooy jiitu ci kanam xasida yi mooy sañ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamul xas yi dafa jar jóg jàngi xam-xam am xam-xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xas yi di liggéey xasida yi dafa ja dafa aajo jàngi xam-xam ba am xam-xam ñëw nag jébbal si lépp xasida yi nekk ci sëñ bi loolu loolu loolu laajoon dégg ngeen wax loolu la laajoon benn murit bu ne bu xamee lu xew dafa war a daa war a jóg jàngi xam-xam jàng ba ne ar dellu si nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax bi loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen yéen yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du yéen sëñ bee sëñ bee tawfeex sëñ bi moo leen dugal ci loolu moo leen ci moo leen ci nargan moo leen ci wommat loolu du yéen sëñ bee waaye wax baa ngoog xel loolu loolu loolu mooy dama ne am na góor gu bari xel ba muy gënee di gone di ndaw muy waxtaan muy déggoo lool muy ñu waxtaanee baag ci mbir di ma ne ah wax ñu ko waaye diw kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe waaye yéen ñi xam li xew <laughs> mu ngoog de kon jërëjëf jëf na ñëpp tàllal ñëpp tàllal na nga ñaan Thank you.